ak ban importance aujourd'hui la mën a am ba tey ñu ko boole suñu sujet ça veut dire que Adama ak Marème fay ñoo bokk ndey ak baay Marème boroom këram mooy président de la république moo tax ñu koy owee Marème fay sàll di Macky sàll Adama Faye boobu il faut pas qu'il pollue notre système politique. ah bon waaw da koy polluer c'est-à-dire dafa yokk ci pollution politique bi ñu dund nii tey. comment ça. mais Adama Faye man aw ma fu ma wax ak Macky fii laay wax moom télé. Mhm. yow amoo ko Amadou amu ko kii amu ko waaye moom am na ko moom mën na toog fekk Macky këram si marem waxu dëgg ne ko lii ak lii su ma sañoon nga bañ a présenté wu wax ak moom waxu biiru nekk en tant que membre de la famille il peut le faire mais bu toogee tey avec tout ce qu'il a avec ce régime fii ñëw taxaw di wax duñ ñu tromper yow boo waxee mën nañ la gëm bu waxee wala kële opposition mën nañ la way ils sont dans le droit mais moom du droit am c'est une trahison familiale waaw moom warul defee nii warul jëfee nii du cëram ak ku mu mënti doon suba président un membre proche de famille ñëw di def li dinaa def li ma def. non de pourquoi il a attendu il a fait plus il a fait non pourquoi il a attendu aujourd'hui pour faire une telle déclaration. il a été candidat de l'opposition en 2020. non oui. fait, non non non non non. il a créé il a son toujours... propre parti. non il n'a pas non non non il ne l'a pas fait gratuitement. il ne l'a pas fait non. nee na xam nga dañu dugg ci yenn détails na la wax lan moo indi problème ak Macky Sall. non xam nga dañu dugg ci yenn détails yi. pourquoi il a attendu en cette période en ce moment pour faire de telles déclarations. pour yow lan moo il a non non non non il a d'autres qui l'ont c'est-à-dire non c'est-à-dire que mën nañ réconforter ñenn ñi mais moralement c'est pas même pas bien dafa rafetul war na ko mën a waxee neneen moom ama moom moom Adama Faye mi wala keneen tabaxul jàkk gratuitement tabaxul fii gratuitement am na tax. nit ñi nag dañu war a bàyyi <clears throat> bu régime tolloo ci benn position bi rek ñu commencé di am yenn comportement yi bu subaa ñu ne noo ñii ay guerrier lañ fekk duñu dara le guerrier c'est lui qui s'est battu durant tout ce temps ki jël ay décision mu taxaw mu sa xeex ak moom ba tàyyi ñëw taxaw man ñooñu laa fonk mu président defloo la nga ne du ma ko def waaye président defloo nga defloo ko ay ati at xëy suba ñëw taxaw bëgg a montrer tu es vierge man je ne te considère celui qui est constant dans l'opposition kooku laa mën a fonk kooku laa mën a toog sa débat mu am yenn position yi ma d'accord si mais tey bu waxee lii c'est normal Amadou da ciy kontaan parce que ça l'arrange. mais non. non si ça peut l'arranger pas la non non dañuy waxtaan rek c'est c'est normal. non non c'est xam nañ ne ñëpp xam nañ waxal dëgg dëgg dëgg am na ñu xamante ni ne moom mii du cëram du cëru Adama Faye laa wax. keneen bu doon keneen ak nu mu mënti amee sa position mayor du sa cër tey la ko mën a wax nañu bàyyi loolu. non c'est-à-dire que loolu mooy suppose c'est-à-dire que. mais Omar man tam loolu loolu laa comprendre Macky Sall dafa ba heure ba mu bëggee dem dafa dem yoon. Omar c'est pas parce que ñoo bokk benn famille. que ma gisee ne que lii c'est pas normal ma toog mu ko parce que c'est pas normal. ma ne ma ne Adama mii tey la ko mën a wax. falsifié les faits. c'est-à-dire tey la mën a wax lii. waaw lan moo tax lu tax mu xaar ba léegi nii di wax lii. xam na ko. non wax ko. non non non ah, non xam nga man dañu am lu mu raadu Adama Adama Faye frère Marème Faye la man dafa am fu may noonu dafa nekk ah euh, nee na ay valeur valeur yoo xamante ni ne. il faut ñu koy conserver. à mhm. mhm. ah, quel que soit alpha. c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui qu'il peut prendre de tels discours ou de telles déclarations. donc donc tu n'es pas d'accord avec lui. je ne suis nullement d'accord avec lui. même s'il dit que président amul. droit de naka wax sa biir mën na ko wax am na cadre bu defee lii rek def une déclaration publique il y a quelque chose qu'il cherche parce que il cherche une virginité et il peut pas l'avoir mais tey yomb na. fay kay beaucoup de personnes peuvent se lever pour dire que non président tu n'as pas droit au au à la troisième candidature. ñu ne non ñii tey comme ñii wax nañ ko tey non ñii nit ñu bax lañ. c'est comme tey tu veux me faire savoir que Mimi Touré oui parce que il est elle est contre la troisième candidature que j'ai rien à reprocher à Mimi Touré gawma loolu c'est-à-dire qu'il faut que les dissidents du système que ñu koy xoolaat nen fii de même m Macky Sall aujourd'hui est un dissident du système il président autant tant d'autres sont des dissidents du système du président il faut que l'histoire des dissidents du système ñu di ko xoolaat doit-on aujourd'hui xaar ba nit ànd ak nit pendant des années ba jusqu'à la fin par de son mandat ou à un an de son mandat mu génn dem élection nga fal ko kon ça veut dire que ñi ànd ak Macky Sall tey. waaw ñi ak président Macky Sall tey. waaw suba su Macky président waxee ne que day présenté wu euh, pour troisième candidature. ñooñu ñi ànd ak moom. amuñu droit génn ne d' accord. lu tax mënuñu ko wax léegi lu tax waxuñu ko léegi. mais parce qu' ils attendent peut être la décision. waaye yow non non xam nga yooyu waxu caaxaan. non non c' est à dire non nit. non non nit nit boo gëmee dara da nga koy wax. même étant dans le pouvoir je ne suis pas d' accord. oui c' est ça qu' a fait. non que. loolu la def. waaw yow kañ la ko wax. bi mu bi mu nekkulee président de l' assemblée nationale. absolument. parce que elle n'a pas été euh, euh, euh, élue de l'assemblée nationale. elle a toujours été contre la. non non en tout cas en tout cas mënoon non non non c'est-à-dire que mënoon Elle la troisième n'a jamais varié. Non, non, non, non, elle ne pas fait. Elle n'a jamais varié. Elle a dit, et Elle n'a jamais. Elle n'a pas été, même, étant, même mii bi ko laajee bërki démb. dafa ni man kese waxuma ko woon ñun ñëpp on était. contre la troisième dama ne dama ne pas aussi. non elle ne jamais ma ne. Mimi Touré fii lañ nekk. elle a toujours dit. elle a toujours été elle a toujours yàgg na wax ne d'accordul ci. non non non fan la ko waxee dama koy génneel fii. li ngay wax nii man gëmmuñu dama koy waxal génneel ma fii benn vidéo. mani dama génneel vidéo non déglu ma mën nga taxaw ne. troisième candidature bi Macky Sall moo dellu ci kat. même moom il était contre. même Macky Sall était contre. waay waaw d'accord waaw Sadikh foofu laa bëgg a wax. Sadikh mën nga ma taxaw nga ne ma pour avoir pour avoir un deuxième mandat. Mm. ñoom ñëpp taxaw nañ fii ne non ñun constitution bi vérifié nañ ko il n'est plus question. non d'accord oui mais loolu loolu non non dama kii. d'accord termine continuez plutôt continuez Omar man xam naa bu baax on est on est dans le système politique. d'accord xam nañ bu baax yu wax yoo xamante ne dama la Mimi Touré. bu nekkoon tey président de l'Assemblée nationale du tenir ce tel discours. d'accord très bien. du ko def c'est parce que nekkatul ci position boobu de de pouvoir boobu. moo tax mu waxee lii. te nit dañu war a changer c'est-à-dire nit ñi constance. constance tey moo bëgg ku koy wax tey étant en dans une position de pouvoir dis le. tu le dis looy wax Macky il est président ça c'est autre chose. Ah non ça non loolu ça c'est autre foofu. Macky Sall on attend c'est-à-dire que Macky Sall tollaguñu. mais déjà mm-hmm. ñun dañuy analyser par rapport ak actes yii ñenn ñi posé. si acte yi ñu la ñuy condamné dama ne la. d'accord bu Adama Faye non dama ne la Adama Faye ak ak dissident du système. très bien clair dans mes propos. c'est-à-dire il faut qu'on revoie aujourd'hui quel doit notre comportement par rapport au dissidents du système. on a toujours vécu. de Djibo de Moustapha Niasse. de Idrissa Seck de Macky Sall ba jusqu'à aujourd'hui ah, non waaw c'est-à-dire ñooñu ñëpp tey vivre nañ ko d'accord il faut que ñu avancer alors les autres alors euh, ah, question bi je pense que on, on va y aller très rapidement parce que dañuy dugg ci ci beneen beneen débat après ma jox Mbow ak euh, Kader cette question sur sur la troisième candidature je pense que toogoon nga fii nga ne président de la république ba tey waxagul donc mënuñu mënuñu analyser mais d'après li nga dégg nii qu'est-ce que qu'est-ce que yow lan nga ci jàpp. kontaan fois que j'ai eu à parler ma wax ci Adama Faye dans mes chroniques c'était pour lui demander 4000 mètres yi nekk ci ginnaaw Elton bi nekk fii ci ginnaaw yéen seen ginnaaw fii seen TV te ñu te ñu te ñu te ñu te ñu te ko euh, clôturer ko def ci ay oto ak benn euh, espèce su kii jàkk fan la ko jëlee ak nu ko amee oui Adama c'est vrai yaa ngi woon ci biir je suis totalement en phase ak Omar bu muy li muy wax nii hmm. am na yoo xam ne boo ci nekkee da ciy nekk ba mu jeex wala boo demee ba d'accord ci yow sa bopp yow nga nekk goro président la république boo génnee ci biti di ko wax parce que dafa am loo mun nañ am nag ñun man personnellement lu ma ci xam waaye sama yoon nekku ci je dis juste une chose c'est que est-ce que waroon nañu mën a toog tey fii di wax waxu Adama Faye ñun man je pense que ni table bi amoon na lu ëpp importance lu ñu waroon wax ci réew mi que di wax quelqu'un boo xam ne juste parce que goro président la rek au dernier moment nekkoon ak président nekk su son di bénéficier de ses largesses et de la famille nekk ci biir euh, euh, njaboot gi kooku tey nii moo jóg taxaw wax li muy wax ci biti ana lu xew waaye li tubaab bi wax euh, anglais j'en sais rien wait and nañu xaar li li naa xew ci biir mais je trouve c'est malsain setul mbox mënul set ndax koo xam ne la gorom la nekk ci biir ak ñoom même bu doon histoire de famille parce que loolu rek la nag loolu la si. ah bon. Hmm. comme lan ban histoire. qu'est-ce qui s'est passé. pourquoi cette sortie. sama nekku ci. c'est bizarre. mais lan lay ñoom daal xam nañ lépp mais kenn ils ne veulent pas partager xam ngeen mais vous voulez pas en parler. mais vous ne trouvez pas normal. non non après parce que sama nekku ci mais je dis juste une chose sama nekku ci. donc vous en parlez pas dama ne non c'est dañ ko wax parce que dañ ko wax ci taabal ji waaye man dama man benn rek laa wax man li muy importance wax bi amul importance bu doon sama sox kenn du ko wax ndax wax naa ci il y a deux ans trois ans ma ne leen quatre mille mètres carrés yi mu am fii ci ginnaaw fan la ko jëlee ak a OFNAC. oui yaa man damay wax. yaa dootul man damay laajte. yaa ngi dégg ils sont tous pareils mais la aujourd'hui cette déclaration de cet argent du pouvoir bu ñu demee ba toll ci benn niveau. amatuñu li ñu bëgg c'est ça qui est terrible dans ce pays là. pour yow ñàkk am lu mu bëgg. mais loolu c'est évidence mais bu xaaree je demande pose une question comme ça ni par hasard. Hmm. j'aurais pu mënoon naa laaj leneen. léegi doo ko laaj est-ce c'est non dama lay laaj ndax état day joxe ay largesse dans une république Macron doomam dunul am 4000 mètres carrés Paris rakkam munul am 4000 mètres carrés loolu loolu ci boppam ah. moo dul yoon cité góor gii ngeen ngi ngaay séddoo nii nii nii Ousmane Sonko li mu yor moomu ko dañ ko ko may dañ kan moo ko ko may ah. kan moo ko may ah, ah si ko may vous êtes non ah merci téere bi ñu séddale Ablaye Wade moo séddale lépp. merci vous êtes sûr de dire Aliou. mais filaawo bi. Euh, non attention mais filaawo bi non non mais mais. mais filaawo bi mais filaawo bi ñu ngi koy tudd ak ñi ñamante ni. mais ñu laaj dañ naan li nga wax ci Ousmane Sonko. non non non li nga wax ci Ousmane Sonko dañ ci am. ma ne la laa wax cité kër góor gi. képp ku fi njëkk am suuf ñi njëkk am laa wax de. waxuma ki jël ba pare jaayaat mais ñi njëkk am ñëpp am na leen may. Ablaye Wade moo leen. waaw donc gis nga arrêté. bi mu Ablaye Wade ana ana ana kii Ndiaye ana Taïbu Ndiaye. mais yi nga ay spéculation. dama ne xoolal li ñu wax na. non mais filao bi. filao non mais non même sax. non non mais non mais non au-delà de ça. non non non alors s'il vous plaît. non non s'il vous plaît. ñun déjà ñu dugg non non non. il a parlé de largesse. oui d'accord c'est-à-dire exactement. mais parfois non parfois. non non non non non non non non non non non non non